ngoog ay ta programme bi nag mi ngi door waaye mi ngi euh, ñi taxawa nag mbay Kouthia euh, ñu gën xamoon nag ci Kouthia ba dem na sax ba siiw euh, tey nag mu ñëw ci programme Pawlish bi mi ngénteem li Mbaye. waaw ñu ngi lay nuyu. sant yàlla bu baax kay yéen la waa leeral. Uh-huh. waaw di leen félicité gis nañ liggéey bi ñu ngi seetaan bu baax a baax a baax. gis nañ liggéey bi ah li mu ak kii yëg-yëg bi ngeen ko bi ngeen siy def. maa ngi daal maa ngi siifar bu baax a baax. mais Mbaye la moo tax nu gëj laa gis. non dama demoon sot xanaa nekkoo fi. man kay moom ba tey non wéragul dama si sox nii rek. Ah, da nga ci sox nii rek. waaw incha allah tey jii rek lu am solo euh, ñu ñuy contacté bu a baax la. Pawlish sama xarit la yenn saa ñu dóorante yenn saa ñu saagante. yenn ñu ñu sama xarit la quoi. ah trop tard xamee ne sama xarit la yóbbu na ma si jabar ji xam naa nag loolu moo tax bërki dem ba tey mi may woo naan sama ngént sama moo tax ma ne su ma du baax